asalaamaaleykum donc euh, ci turu bureau confédéralu confédération de syndicats autonomes ci euh, teewaayu camarade membre bureau confédéral yi fi teew ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di gërëm journalistes yi nga xam ne ñëpp ñëw nañ pour euh, fekkee conférence de presse bi nga xam ne bureau confédéral bi woote na ko bi nga xamee ne jóge nañ ci suñu instance yi gën a mag muy bureau confédéral bi nga xam ne tenir nañ ko ci weer bu le pour waxtaan ak euh, Sénégal waxtaan ak opinion nationale ak internationale xamal leen position wu CSA ci situation bi nga xam ne moom la suñu réew di jànkonteel au plan politique mais surtout conditions yi nga xam ne liggéeykat yi ñu ngi koy dund ci biir entreprise yi ci biir Euh, liggéeykatu taax yi ak liggéeykatu euh, réewu euh, dëkku monde rural mooy àll bi ah dañuy rafetlu ci situation bi nekk tension bi nga xam ne au plan politique wàcc na bu baax fan yi ñu toll bu fekkee bi ñu constaté ne événement wu juin yi bàyyi woon na fi ay jafe-jafe yu bëri et ci biir événement yooyu yaakaar nañ ne ñu ci bëri en tout cas dund nañ ay jafe-jafe ñu yaakaar donc buñ amee apaisement maanaam bu tension bi wàccee ñun CSA en tout cas jéem nañ ci dox suñu wàll pour que jàmm dellusi ci dëkk bi ñuy félicité wu ci bu baax ci loolu di woowaat encore une fois acteurs yëpp muy acteurs politiques yi surtout que ñu xoolaat bu baax nan lañuy defee pour que situation bu metti boobu nga xam ne ñun liggéeykat yi ñun liggéeykat yi nga xam ne en tout cas ñu ci bëri ñàkk nañ ci seen liggéey ou bien ñu ci bëri toog nañ ay jours yoo xam ne mënuñu liggéey ñu xool nu ñuy mettre en avant li ñuy wax patriotisme maanaam suñu réew Sénégal ñu mettre ko en avant et Sénégal nag bu ñu koy mettre en avant mooy jàmm jàmm lañ xamee Sénégal jàmm jooju ñu xool nan lañ koy sàmmi euh, c'est ça mu ngi woo autorité yi pour que ñu jël ay mesures yoo xam ne dina permettre ñu consolider lii nga xam ne mooy jàmm ji euh, ñu ngi demander aussi état du Sénégal mu accompagner entreprise yi nga xam ne ou service de l'état yi nga xam ne dañoo tëj fi mu nekk nii parce que yàqu-yàqu yi traverse na leen muy ay banque muy ay service comme ay COUD ay service wu état yi nga xam ne dañ leen yàqate complètement liggéeykat yi fa nekk euh, pour ñu reprendre seen liggéey il faut que état bi jàpp ci investiraat pour ñu rénover structure yooyu euh, jàpp ci parce que liggéeykat yu bëri naam am na ñoo xam ne ñu ngi leen di fay mais ñi ci ëpp nga xam ne ay contractuel lañ Euh, dañu toog seen kër kenn fayu leen donc loolu ñu ngi demander encore une fois gouvernement bi mu jéem ci def ay jéego nu mu gën a gaawee pour permettre liggéeykat yooyu ñu retrouver seen liggéey euh, ci cadre boobu aussi ñu ngi demande que état bi sàmmoo ak li ñuy wooyee liberté démocratique yi ak principe bu état de droit maanaam nit ñi am sañ-sañu manifester peut-être seen lu ñu yaakaar li ñu foog ne seen droit wu manifester la ñu mën a exercer ko livrement sans aussi ñu yàqal nit ñi sans que ñu heurter ñeneen ñi nga xam ne seen yoon nekko donc loolu état du Sénégal moo am sañ-sañ moo am devoir veiller à ce que loolu ñu respecté ko ci suñu réew pour que démocratie bi gën a jëm ci kanam comme ni ñu koy waxee euh, c'est ça aussi mu ngi saluer dialogue nationale bi nga xam ne amoon na fi ci weer bi yi ñu passé euh, ak li nga xam ne président de la république jël na ci coobare wax ne du nekk euh, trois du déposer troisième candidature ci présidentielle bi ñu jëm ñaari pàcc yooyu def naa bokk na ci li renforcer effectivement euh, apaisement climat bi maanaam wàcce tension bi ci réew yemuñu foofu dañuy woo acteurs yi ñu organiser campagne ak pré campagne ci condition yoo xam ne dina permettre nit ñi ñu nekk ci jàmm euh, lépp lu ñu war a dajale lépp lu ñu war a teg ci taable bi mooy programme yi maanaam confrontation ay idées yoo xam ne mooy permettre nit ñi comprendre kii lii la bëgg kii lii la bëgg bu jëlee réew mi lii lay def te effectivement ñu bañ a def loo xam ne day xalaat jàmm ji ci liggéeykat yi ñu jàpp ne dañuy féliciter centrale syndicale yi nga xam ne ñu ngi woon en négociation ak gouvernement du Sénégal ci weer yi ñu passé euh, ak patronat bi dialogue tripartite bi nga xam ne le 31 mai 2023 lañ ko tëj par benn accord boo xam ne permettre nañu yokk salaire yi ci secteur privé bi euh, loolu muy matérialiser wu maanaam yi yokkute salaire yi toll na ci yokkute bu tàmbalee ci cinq pour cent pour salaire yi gën a mag ba dix pour cent ci salaire yi gën a ndaw loolu dina tàmbali ci fin du mois de juillet bi ñu jàpp ci ne aussi le SMIC mooy salaire bi nga xam ne moo gën a ndaw ci Sénégal nga xam ne mu ngi woon à cinquante sept mille huit cent cinquante yokk nañ ko ba soixante quatre mille deux cent vingt Euh, yokk nañ aussi indemnité de transport bi mu jóge vingt huit mille huit cent yéeg ba vingt six mille euh, loolu nekk na ay avancé naamu ni ko ni ñu koy jàngate ñun CSA paala rek mais doyul par rapport ak liñ doon séntu ñun liggéeykat yi mooy yokkute bu am solo euh, ñu jàpp ne pas boobu secteur privé def nañ fexe ba ñu gën ko gën a yokk te yokk boobu mu ngi war a tukkee ci gouvernement du Sénégal nangoo bàyyi ci pàccu impôt yi ñuy teg ci salaire yi ñu wàññi ko ba nga xam ne dina mën a accompagner liggéeykat yi euh, yokk wàññi impôt presque augmentation de salaire la dans le secteur privé surtout euh, ñu yaakaar ne bees boobu bu ñu ko amee dina yokk Euh, koom-koomu liggéeykat yi pour ñu mën a fair face ak euh, situation prix yi ñu ngi wax gouvernement bi nag ak patronat bi ñu veiller à que accord boobu ñu appliqué ko parce que dégg nañ ci yenn entreprise yi ñu naan dañuy xaar lii ñu naan dañuy xaar ay décret d'application alors que loo xam ne un accord tripartite la validé avec le gouvernement du Sénégal ñëpp la concerné dans le secteur privé ou parapublic maintenant dans la mise en œuvre effectivement am na décret d'application yu ko war a gunge ci loolu ñuy jàpp ne effectivement dinañ ci taxaw pour que gouvernement du Sénégal mën a euh, veiller à ce que secteur yi mu concerne yëpp ñu appliquer ko ni mu ware bu ko deful niñ defoon ba imposer ay négociations yu am loolu mooy déposer woon nañ notification de conflit collectif bi ñu jógee ci premier mai Euh, notification de conflit collectif boobu aussi mën nañ ci dellu surtout bu boobaa dañuy boolewaale ak euh, li ñu doon wax léegi baisse de la fiscalité ci salaire yi. Euh, ñu jàpp aussi que denrée yi njëgu prix wu service yi ak denrée yi ci Sénégal dafa yokk day yokk en continu maanaam amul àpp alors que yàggul dara rek. concertation nationale sur les prix amoon na ba ñu homologué ay prix mais daanaka boo demee sur le terrain li fay am ak loolu dafa wéetu donc li ñuy woo gouvernement bi mooy mu mettre en place les dispositifs dégg naa euh, recruter nañ ay volontaires de euh, nu ñu de la consommation ñoo xam ne ñooy veiller à ce que ñu appliquer prix mais sur le terrain en tout cas gisuñu dara donc gouvernement bi li muy dugal ci ay engagement li muy jël ci ay engagement ay charges nañ ko matérialiser ci terrain bi nga xam ne dina permettre ñu appliquer prix yooyu euh, ñuy woo chef de gouvernement bi muy premier ministre mu arbitrer ak ministère yi nga xam ne ñoom liggéeykat yi ñu ngi ñaxtu yaakaar naa ne ñu ngi may signaler que secteur transport ñu ngi am préavis de grève euh, boole ci ak secteur tertiaire bi nga xam ne Euh, ñu ngi négocier ñu ngi en tout cas en grève pour que gouvernement bi delloo si leen accords yi nga xam ne amoon nañ ko ak ñoom mbaa ñu négocier ba trouver compromis ci accords yooyu. secteur tertiaire bi boo koy wax mooy agriculture jëm ci pêche et cetera secteurs yooyu nga xam ne yëpp c'est des secteur de l'État dañ leen dafa defaloon ay yokk mais yokk yooyu gouvernement bi dellu si waat ci gannaaw ne dafa ëpp donc blocage bi ñu am loolu la nan la ñuy def ba. Euh, arbitrer pour que travailleurs dellu ci seen liggéey. ñu jàpp aussi que ci loolu négociation yi nga xam ne liggéeykat yi def nañ ko ci secteur yeneen yi muy travailleurs yi nga xam ne ñoo nekk ci collectivité territoriale yi ba am euh, accord mettre en place la fonction publique locale ñu jëfe ko ba nga xam ne liggéeykat yi nga xam ne war nañ leen a améliorer seen ay conditions de rémunération seen condition de travail ñu yeggale ko ci kaw loolu ñuy jàpp aussi que ne secteur santé secteur éducation accords yi nga xam ne ñu ngi koy mettre en œuvre gouvernement bi war na taxaw pour que euh, accords yooyu ñu mettre leen en œuvre de manière définitive ba ñu am bañ a am ay jafe-jafe jàpp nañ ci benn poñ boo xam ne dafay revenir jusqu'à présent mooy suñu mbokku décisionnaire yooyu nga xam ne euh, seen décret bi nga xam ne moom la ñu waroon a accélérer pour ñu réviser ko pour permettre euh, ñooñu ñu mën a euh, bénéficier wu vraiment li seen mbokk fonctionnaire yi di bénéficier wu surtout ci wàllu prise en charge retraite et et ci wàllu monde rural ñu jàpp effectivement comme niñ ko déggee ci liggéeykatu àll bi euh, condition yi nga xam ne moom la ñu leen di délivrer seen ay jiw ay engrais produits yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee ñu ci bëri ñu ngi koy joytu malgré que l'État wax na ne def na cent milliards ci budget wu ren bi pour préparation hivernage loolu li muy indi mooy ñuy demander rek gouvernement buy dugal xaalis mu xool bu baax nan la koy dugalee parce que secteur agriculture comme ni ñu koy waxee nekk na secteur boo xam ne bu ñu bëggee am progrès dëgg ci Sénégal am souveraineté dëgg euh, lépp lu ñu fay def ci investissement war nañ fexe ba mu am transparence et ñu gérer ko ci ak rigueur euh, fi ñuy jeexale rek mooy ñu ngi dugg ci biir euh, hivernage maanaam nawet bi et li ñuy jàpp mooy comme météo nee na ndox mi lay bëri ñu ngi woo gouvernement bi mu jël les mesures nécessaires pour que lépp loo xam ne ci wàllu xeex mbënd mi la ñu mettre à disposition loolu ba nga xam ne xëy na ci biir dëkk yi dinañ éviter jafe-jafe yi nga xam ne moo doon am chaque hivernage maanaam nit ñi dootu di tëmb mbaa kër yi di tëju euh, jafe-jafe yi di bëri.